ndax ànd bi am fii tey ah ñu bare bëgg nañ ko de bu yem ni département ñëpp joxante loxo ñu am juróom benn candidat ñeent ci liste départementale majoritaire à un tour ñaar ci liste nationale ànd mooy indi ànd xol ànd xol mooy indi ànd liggéey ànd liggéey mooy indi ànd jëm kanam ànd jëm kanam mooy tax réew avancé jamono bii jamono jeunesse ak jigéen ñi ñu nekk mat gis fekkee dégg dem dik dellu si loolu moo tax ngeen jël ma ci ak président Macky Sall ngeen dajé fi ci Nioro le 29 avril fukki maire yak ak juróom maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant ngeen dajé fi avec tous les leaders politiques ngeen signé document fi ne ñaan nañu Aladji Moustapha Niass mu jiitalu suñu la ci département de Nioro ngeen jox ko Macky Sall. ma dem ne ko d'accord na mo indi lité